Soutenons la Dara d'Oustaz Alioune en envoyant Ali Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte.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 julli ci bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey mu war nekk suñu fukkeelu daja ak juróom-ñett ci riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin al imaam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawi liggéey ko ñëwoon fi ci 631 jóge fi ci 676 ca gàddaay ga Riyaadu Saalihiin di téere boo xam ne mi ngi ko def pour defal ñu ci formation tudde ko Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin dajale ci hadiis yu bare bare bari junneeg lu topp wala ñaari junni yu manqué tuuti moom imaam abu zakariya yaxya bnu sharaf an-nawawi bi gàddaay gi am juróom benn téeméer at fanweer ak benn la fi ñëw bi gàddaay gi am juróom benn téeméer yu teg juróom-ñaar fukk ak juróom benn la fi jóge 631 676 soo ko seetloo juróom fukki at yi manqué na tabaarakallahu mu ngoog eh, imaam téeréem boobu wax naa ni mu buntalal ñu ko ci tàmbali bi lu jiitu muy ñëw ci li nga xam ne mooy lubbal mawdu daf nu njëkk a ñëwal ci li ñuy tuddee yéene waaw mu jàngal ñu ne ku ci ci ñun buy def na yàlla tax buy wax na yàlla tax ba mu ci jógee mu ñëwal ci buntub tuub koo xam ne daa nga jëf te yàlla taxut dëppal koo xam ne daa nga wax te yàlla taxut dëppal loolu mooy baatu tuub rekk tabarkalla tey def te yàlla tax tey wax yàlla tax boo léegi nga am ñu fay la bu ñetteel ba mu indil ñu buntub muñ kii def te yàlla tax muñu lee mu bàyyi moo tax mu indi buntu muñ kuy def te yàlla tax bu muñut lee mu bàyyi ndax nit ñi loo def ñu wax loo wax ñu wax waaw mu ngoog bunt la ba am solo ba ci imaam jógee rahimahullah mu indil ñu beneen bunt ba am solo ci bunt yooyu muy bunt bi ak sidq dëggu ak dëggal tey ànd ak ñu dëggu tey dëggal waaw lu am solo la ci ci jëf yi ba mu ci jógee ci juróomeel bunt mu ne ñu almuraqaba muy fuglu bàyyi xel ci yàlla mi nga xam ne mi ngi lay gis xiina taquumu mi ngi lay gis wa taqallubaka fi saajidin juróom benneel bi te mooy biñ jeexal mu def ko ci at taqwa muy ragal yàlla nu ñëw kon ci juróom-ñaar la bunt bi professeur wala septième chapitre waaw bu doon professeur Sadakan moo ko jàngale <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér waaw septième chapitre baabun fil yaqiini wa tawakkul bunt bi ñaar la ci boole al yaqiin ak at tawakkul al yaqiin mooy ku amul sikki sàkk ci gëmam amul deng-dengi amul xel ñaar bu doon ñoom professeur ñu ne du dute waaw du dute am na yaqiin xam nga léeg-léeg nga dégg ñaar di wax nga naan kii diw la ak du moom diw la amagoo yaqin boo amee yàqin doo leen wu doo leen wuutale sunu waajur woon ci Louga xaj Abbas Sall rahmatullahi ali waaw nee na yàqin ay xam-xam chakkoog wax moog zannu mu naa mën na benn ci xam-xam bu mat xam-xam mooy al yaqin doomu aadama dañoo bëgg mu am ko danañ ci ñëw digganteem ak boromam atawakkul nag mooy wéeru ci moom bi nga amee yàqin ne yàllaa ngi fi am yàqin ne moo la yor am yàqin ne moo la bind am yàqin ne moo la fii jële nga tëdd nelaw nag bàyyee mbir ya waaw nga tëdd nelaw bàyyee mbir ya waaye tabarkàlla su fekkee yàqin amut ah, bët bu set nga xëy ci dara jàpp lii lay tax a mucc te gis nga fi ne ñu yeew xar ci kër gi ñu ngi koy wutal lum lekk waaw lu waay yeew lu nekk rek yaa ngi wut benn programme di ko jox muy lekk di ko jox muy naan sunu borom mi nu bind ba noppi nag rabbil aalamiina kon moom tam amal yaqiin ci ne sa yëpp moo ko yor si yëpp moo ko yor waaye defe ne danga naan diw def na ma nangam wala dana ma ko def di wax na ma nangam wala dana ma ko wax déedéet amal yaqin ci ne borom bi subhaanahu wa taala daal moo lay bind moo lay sàmm moo lay aar moo lay dundal waaw inna allaha latifun xabiir waaw fu waay nekk xam na fa nga nekk bunt boobu am na solo lool imaam bëgg na koo jàngal balaa jàll ci bunt bi nga xam ne moo ci tege jëm ci al istiqaama bunt bi imaam Nawawi rahimahullah daf ko laltaaye la nam ko daan laltaaye mooy indi ay aayaat ci alquranul karim dafa dem ca suuratul araaf aaya juróom benn fukk wala ñaar fukk ak ñaar ngeen baal ma mu indi ma walammaa raa al muminuuna al ahzaab kon nag ci ahzaab la nekk ngeen baal ma suuratul ahzaab waaw bët bee gis aaraaf walammaa raa al muminuuna al ahzaab qaalu haazaa maa waadana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu wa maa zaadahum illaa imaanan wa taslima suratul ahzab ay ñaar fukk ak ñaar nee mi ngi ñuy jàngal yaqiin di ñu jàngal tawakkul dafa am jamono arab yépp mànkoo arab yi yépp góor jigéen mag ak ndaw mushrikuuna munaafiquuna alyahuudu wa nasaara wa ubaadul asnaam ñépp man ko dal benn coalition boo xam ne bu ñu rëyee gëj naa am ci àdduna waaw ñoom ñépp ñu man lu nu bëgg tey jële fi yonent bi alayhi salaatu salaam mook saxaaba yi définitivement waaw buddi jàkka yi màbb kaaba ga loolu la loolu la ahzaab yi bëggoon waaw loolu la ahzaab yi bëggoon kaaba ga nag tiit nañ ko ndax gisoon nañ ba abraha ñëwee doon ko song la leen daloon ñu ne kon nañ njëkk ci almadina nañ dem ca euh, yonent ba sallallahu alayhi wa ñu faagaagal ko moo ki saabaam màbb jàkka ji door ñëw fii loolu mooy seen coalition bi ñi nga xam ne amuñu temps wu ñëw ñu participer ay cotisation yu rëy waaw ñu joxe juróomi million ñu joxe lu ko ëpp ñee joxe lu ko yées tuuti ñee joxe seeni jaasi ñee seeni yet lu nañu joxe ko ku munta ñëw rek cotiser nga ñi mën a ñëw ñëw am ca ñëw ba noppi cotiser dama ne mbooloo moomu arab yi kenn desul allahu akbar ñu wut si nag almadina bi aleyhi salaatu salaam yëgee coalition bu mag bii tër yi ak seen pexe yi moo saaba yi réunion mu woo leen réunion wa amrum shura baynahum leen Quraysh day li ñu man lépp nga ca ah waaw Quraysh liñ ñu man lépp ña nga ca wax leen ni coalition bi tëdde wax leen ña ca nekk ay membre wax leen lañ jublu ca boole seeni doole ñu ngi jëm si Madina bëgg noo faagaagal nun ñépp waaw saaba yi ku ne jël kàddu saaba yi ku ne jël kàddu wax sa xalaat ci réunion boobu mu leen woote am solo am ci biir mbooloo mi ku yëkk ci loxoom daal di présenté boppam ne leen maay salmaan faris laa jóge waaw salmaanul farisi man de am naa xalaat ci lii ñu ne ko waaw mu ne leen ñun perse yi dañu am pexem xeex mu ma leen bëgg indil ba xam alayhi salaam daal ne ko man pexe mu ne ko xam nga Makka benn bunt la mu ne ko waaw mu ne ko Madina benn bunt la ndax Makka li ko wër ndox lañu tudde ko shibhul jazira fi Makka nekk jazira boobu presqu'île boobu professeur wenn yoon la am mu ca dugg li ko wër lépp ndox la Salmaan ne leen noonu yàlla def makk noonu la def al Madina Madina gi li ko wër lépp ay doj la benn bunt la am yonent bi tàmbalee mu ndax xalaat bu rafet bi salmaan ne leen nañ dem fi nga xam ne mooy benn bunt nga xam ne ku fa jaaru doo dugg ci dëkk bi ñu baare ko ñu ne waaw nu ñu koy baaree mu ne dañuy gas dañuy gas am ngaa dew pax mu xóot waaw te yaatu pax moo xam ne fas mënu koo tëb nit mënu koo tëb yonent bi ne xalaat baa ngoog de saxaaba yi ñépp na xalaat baa ngug de ñu daal dem pour doxal xalaat bi gas ngaadew mi xootal ko ba noppi yaatal ko daal dem ma dina tëdd nag bàyyi seen bopp ak yàlla suñu borom ne waaw kay lii rekk laa bëgg de waaw ku def li nga man daal boo noppee bàyyee ma li nga mënul ma def ko allahu akbar afaraaytum maa tumnuuna afaraaytum maa taxruzuuna afaraaytumul maa alladi tashrabuun afaraaytumun naar allati tuuruun waaw waaw saabay dem tëdd nelaw gas nañ li ñu def nañ li ñu def mooy gasum ngaa dew yaatal ko xóotal ko dem tëdd ñu jékki-jékki gaa yi ñëw fa gis pax mi mënuñu ko jéggi ah munuñoo dugg pour jàll ndax ku jàll doo jàllale saw fas mbaa ngànnaay wala boo duggee ci pax ma doo génn ñeneen sax am na ñoom ñu ne lii du pexem arab am na ñu ko wax ci ñoom lii du pexem arab waaw wax nañ dëgg du pexem arab waaw pexem perse la salmaanul farsi bi gaa yi ñëwee bari lool foo xool gis aw nit góor jigéen mag a ko ndaw ak i ngànnaay ki fas ak i gëléem waaw sunu borom tabaaraka wa taala bàyyi gaaye ba nu tekki seen bagaas yépp ba toog nag fas yéene ne fii lañuy toog ginnaaw ñoo gas pax mi ñoom duñ génn ñun duñ dugg te buñ génnut buñ jeexalee saaboo ki gaas duñ ko jëndi nun tam toog fii rek ku génn nu rey <laughs> allahu akbar sunu boroom fekk leen faak ngelaw waaw ngelaw loo xam ne kenn mësu koo gis ngelaw lu foor bëri poussière lool lëndëm lool ba fargaaj seen bopp defe ne saxaaba yi ñoo génn ak yonent bi song si leen ñu samp seenu xel ñibbi boroom bi nag di bàkk ka kañ saxaaba yi nga xam ne ba ñu séenee al azab ba ñu séenee wa lamma al muminuuna al azab ba ñu séenee euh, coalition ya ñu toll nañ toll war lañ war ŋàbb lañ ŋàbb au lieu ñu ne wëy dee nañ déedéet au ñu wax la mbokki Moussa yi waxuñu innaa la mudrakuun déedéet ñu waxuñu loolu de waxuñu loolu de dañoo am yaqiin ne yàlla dana leen aar ñu tawakkul ci moom bàyyi ko yëf ya xaalu dañu ne haza mbooloo mii ngeen gis haza coalition yi ngeen gis maa waadana allah mooy lanu yàlla waxoon ne dana am wa rasuluhu akub yonentam lii la yàlla waxoon lii la yonent bi waxoon wa sadaqa allahu wa rasulu yàlla wax na dëgg yonent bi wax na dëgg allahu akbar mbir mi ñëw na waaye wa ma zaadahum illa imaana allahu akbar wa taslima yàlla nee mbooloo ma yokku leen tiitaangi déedéet daf leen yokk imaan maa imaanihim daf leen yokk taslim mooy nangul yàlla woomatul ko jébbalu ci moom mbokk yi dund boobu laaya jooju yaqiin ji ci saxaaba yi am ba tax yàlla ne jibril kaay nga dem wax ko ka ma yónni ca ñoom yaqin joojoog tawakkul jooju la nu bëgg nu am ko pexe mii nga xam ne moom la Quraysh fexe àdduna si yépp fexe ko ngir jële fi kenn ak ñam àndal pexe ma bu yàlla àndul ca pexe ma pexe ma du sotti moo tax pexe mi naax saay pexe mi naax saay waaw pexe ma yàqu na waaw wa sadaqa allahu wa rasuluhu wa ma zaadahum illa imanan wa taslima ca ahzab la ko borom bi subhanahu wa taala wax mbokk yi maa ngi ci raadu saalihin maa ngi ci buntub juróom-ñaar bunt bi tudd baabun fil yaqini wa tawakkul maa ngi ci aay yi nga xam ne moom la ko imaam Nawawi lal taayale tey mooy suñu fukkeel daje ak juróom-ñett mu waxaat feneen moom borom bi subhaanahu wa taala lu nuy jàngal yaqiin ak tawakkul ca ali imran suurat ali imran ay téeméeri ñaar fukk ak ñett ñett jàpp ñaar fukk ak ñeent su ma jumut yàlla neen alladina qaala lahum nnaasu inna annaasa qad jamuu lakum faxshawhum fa zaaduuhum imaana wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadl lam yamsas um suu wattabacuu ridwaana allah wallahu zu fadlin azim xam naa bu ñu ustaas Lamin Mbayum Tiwaawan déggee dana am lu xelam dem waaw al ustaas Mouhamadul Amin Mbay ci Tiwaawan bu nu déggee ci laay ji dana am lu xelam dem al ustaas Ahmed Daam Njaay bu nu déggee dana am lu xelam dem sëñ Abdu Mbàkkeem Daarul Muxti bu mbay see xaddi bu nu déggee dana am lu xelam dem <laughs> waaw waaw allazina qaala lahumu nnaasu inna naasa qad jamucu lakum faxsewu yàlla day jàngale fii lu am solo lu jëm ci yaqiin ak tawakkul mu am gaayu def lu ko neex moom borom bi loolee ko neex mu bëgg ñun ñépp mu jël sasu jéem a def loola mooy lan defam ñu nekkoon cib xare xare ba métti lool ba ñu defee ne seen yónent ba walla seen général ba mën na caa des ndax xare bu metti ñu dégg ci biir xare bi ne général bi daanu na am ñu leen yuuxu ne leen inna naasa qad jamu'u lakum soldaar si daje nañu pour songu si leen farsawhum daw leen waaw waaw daw leen am nañu am nañu leen di songu si waaw am nañu leen di songu si soldaar si daja nañu seen seneraal daanu na soldaar saa ngi leen di songu acca daw leen seet tët tët sunu la ko ca neex muy fa zaadahum imaana ñu gën a dëgër fa zaadahum imaana ñu gën a dëgër ñu gën a ñu gën a am ngëm waaw ku ñu yuuxu naan la dawal nga far gën a taxaw waaw gën a dëgër ndax ñoom dañoo am yaqiin dañoo am tawakkul moo tax kenn mun leen a xoqatal bañ daw waaw ndaw ku ndaa ba morom ja daf ko bëggaloon benn oto buñ doon def concours dëkk boo xam ne dañoo ragala ragala ragal tabarkalla mu nga fële ca côté Kaffrine <laughs> ay ndaw ko ndàll ñu waaye ñu teg benn oto na ku fi gën a ñeme rek ñu jox la kaat kaat bi tabarkalla caabi jaa ngi nii waaw kenn ci ñu jiite concours bi daa di yolli ku ndànk ñëw ci euh, Mor Ndaw <laughs> waaw ne ko bu gaa yi dawee yow nanga fi des ndax nga jël kat-kat bi mu ne ko waaw mu ne ko duñ leen dóor duñ leen xas déedéet amul fetal amul jaasi day ñëw rek ne ne daw leen yow nag bul daw mu ne waaw gaa yi daal di préparer fekk ca ña nga toog ca pénc ma rekk ñu daw ak si leen daw leen tey ngeen dee ñépp daw mu des kenn ki ñu ne woon bul daw ñu bëgg a ñëw jox ko oto bi fekk mu dee ndax tiit <laughs> kenn mësu koo gis rek imaam Ablaye Ndaw waaw moom moom miñ doon waxal wax ji pour ne ko bul daw ñu ñëw fekk dawut ndekk li tax dawut daa dee léegi nag <laughs> moom ña daw a ko tane yàlla loolu la ñuy nettali allazina xaala lahumu naasu dafa am ñoo xam ne soldaar leen inna naasa soldaar sa qad jamau lakum daje nañu pour song leen faxshawhum tiit leen te daw fa zaadahum imaana loola yokk leen ak gëm waxaaloo ñu teg kene ne daw lan hasbunallah nisaan daw mukk xasbunallah ndeysaan cay mu ngoog de xasbunallah waaw allahu akbar xasbunallah nun yàlla doy nanu lu tax nuy daw ci pexem nit ak ku nu song wa ni'mal wakil wa ni'mal wakil te yàlla doy na wéeruwaay ku ci wéeru doo jaaxaan mbokk yi fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadl ba nuy ñibbi jaasi dalu leen paaka dalu leen te yóbbaale nañ wërsëg lam yam sas um suu waaw mooy paaka dalu leen jaasi dalu leen tabarkàlla jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo bind bi jeexut dañoo ak suñ ko war yëkkatee ci kanam tuuti ñëwee laat ko incha jaajëfal sponsor yi jaajëfal partenaires yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun xelal Ramadan bu ñu tàmbalee ñu tàmbali yal na yàlla defal leen barke ci li ñuy def siwal ko euh, te euh, jaral ko yal na yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen yal na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir